léegi nag yàgg maar ñaar ñi ma taxawal defe naa ne bu la neexee nga ne ci wolof mooy ñaari doomi Penda Naar yi ndax mënoo gis Ablaye Diop te gisoo Adama mënoo gis Adama te gisoo Ablaye Diop mu mel ni Youssou Ndour a ko waxoon wala Mbaye Dièye Faye ànd bu yàgg bi dëgg la dëgg la kon yàgg maar fi may jëkkee mooy ci njiital sum production balaa ma ñëw ci Adama muy Ablaye Diop ndax it ku ne xam na ne sum production boo ko déggee label la buy tëgg ay làmb rawatina simple defe naa ne am na sax lu muy dëgmal Ablaye Diop bu ginnaaw bu ma la nuyu ziar la bu la neexee sax nga kii de waaw. taalibe baay ñas nga maa ngi lay bëgg di la nuyu di ziar waa Medina Baye yëpp nag. waaw ñoo ngi delloo ziar bu baax eh, Babacar ñu leen di nuyu leen sant di rafetlu lii aussi yéen moom ci lii ngeen dégg rawatina yow mi Babacar muy dañ la lool ci lu rafet rek ngay dox sant nañ leen suñu teewaay fii nag nekkoon ci ay programme mu lamb rek. premièrement affiliation écrit Mame Mbis di waajal aussi sum le 4 avril muy suñu ouverture saison pour sum production buñ fa jógee ñu nga passé le 10 incha allahu rabi ci loolu daal lañ nekkoon baax na. kon yow date yooyu yëpp jàpp nga ko fas fa yéene tek ay mise mise yi bu njëkk bi sum ñaata la. mise bu njëkk bi sum 500000 la passé 1 million incha allahu rabi. bi ñaata lay bu ñaaxar bi ñu ngi ciy estimé 3 millions incha allah incha allah. waaye ren sa naa tàng. ah fas yéene bëggal waa li simple rek macha allah. mais sa diggante ak Adama lan moo leen lan mooy relation ay mbokk ngeen wala lu leen boole. yàlla mooy xool ñaari nit ñi mun a ànd boole leen kii mu ngi juddoo Fatick ci benn dëkk bi ñuy wax Niawdane man itam région de Fatick ci benn dëkk bu ñuy wax Soum. Dakar moo ñu boole mais li ma mun a partager ak moom ci kaw suuf bu desul la du dul secret rek mënu ma ko partager ak benn mbindeef bu dul waajee kon xanaa loolu dara di dox nag ba ci biir këram doom sax tuddee na na xam naa bàyyi la rek nga jàll ak mbëru askan bi Babacar. nga gën a góorlu rek am na benn empreinte boo jot a marqué ci suñu lutte simple bi gën a la góorlu bu baax ñu la ci sant bu baax a baax a baax. reconnaissant nga ndax li nga wax nit ku nite moo koy wax te itam hélas daakaar naa ne ah dañuy non Passy du mën a ñàkk kii Passy la dëkk kii waa Passy la Equivox su day ñëw Passy et puis dañuy dem ñaaxar bu soobee suñu borom du mën a ñàkk Adama Diouf. borom ñaw dan Adama Diouf Mame Mendy Adama Diouf sax international laa lay wooyee ndax ñëpp la bëgg moom loolu la yàlla dogal. maa ngi nii rek xanaa di leen nuyuwaat rek ndax nuyoo nañu sax di nuyu askan bi yëpp nuyu Sénégal yëpp di la wax ne comme fi ngay fi ngeen daaneel rek fa laay jëlee gis nga waa ji bu lamb ji ubbee dafa ne lamb ji rek nekkul Dakar comme ponkal yi boo xam nañu Dakar te waa dëkk ba yeggoon nañ ci confinement bi te dañoo war a génn tay bâche yeeg rob yeeg ñoom seen génni te dañoo nekkoon ci point mu ne damay génn ci ci waay loolu ku am xel rek moo koy def gisul ne millions yi fii lañ nekk de dafa dem ci àll ci àll yi suum fu mu dëkk te baax na rek sa ba waxuñ ko jarul sax nga wax waaw diw baax na sa ba waxuñ ko soxlawul moo tax mu njëkkee sum ci stade ba te boo boo fa demee di nga gis ne mboolo bi yëpp génn nañu ndax gars yi na mun nañ ko naa jàlle passé was ci waat nag ñaaxaar pour boole région région de Fatick yëpp bu jógee doog a ñëw fii nag Dakar Dakaru nga xam ne nag mbir bi nekkul nekk say baas yi daa war a génn sax ak rob yi war a génn ak rob yi yooyu dafa war a génn dañ ko gëj a gis nit ñi ñu ngi doon. mais Tay boo ko gisee nu mu lay def. non Tay Bass moom dafa tegu gis nga xale bi mu soloon Tay Bass li mu def nii tegu fen sa xarit nga gis sa ginnaaw borom gàncax am wi nga gis nii bu defoon Tay Bass mooy gën day jaay tubaab tubaab lu nii rek eh boo defoon Tay Bass nga bàyyi ko. boo ko takkoon de Tay Bass nga koy njëkk a ñaax. après nga dox nga dox comme problème. <laughs> mais léegi comme loolu nga wax noonu ci Abdoulaye Diop macha allah mu ngi jëm sum jëm ñaaxar jëm ba nga xam maanaam ñetti journée ak dakaar mel ni kon moom itam mu ngi yokk lamb simple. Mm, ngi yokk lamb simple ma nuyu aussi waa waa Rende Kayer nga xam ne ñooñu ñoo ma tëgg gars yi dañ leen war a fexe ñu am date pour tëgg ñu di nuyu njiital nuyoo bi monsieur Alain Ngom ak euh, ak euh, Male di nuyu di nuyu Jimbo di nuyu Bugg Fallu nga xam ne ñoo doon dox combat di kontaan ñoom bu baax a baax ndax ñoom it néew nañu pour bokk ñëw pour bokk nag neexul mais nañ gars yi nañ leen xajal ñu am place ci biir loolu def ci am solo mais sum lu mu def dafa am solo lool ma fekk leen fi aar national aussi ak sama papa Gaston nga xam ne nag yàgg ngeen. non Gaston sama papa nag kooku. 4 avril jooju. le 4 avril ne sum moom koo xam ne dañ ko tuddee nag bàyyil ba affaire bi sotti mu jóg ñëw sum déedéet bàyyil ba affaire bu neex mu doog a ñëw ci man de déedéet su mi boo ko xoolee année bi ñu xamante année bi ma defee accident bu métti bi ñu am presque six mois hôpital damay nuyu Robert Medou Ndiaye nga xam ne médecin bi ma doon sonoon ci man la kooku bàyyil ba affaire bi nga nekk ki neex na rek mu doog a ñëw ci la ñu gën a miinante ba si nit ki tey mu nekk nit koo xam ne ku déggu kii laa gi ñuy dem adressé ngoon di fal président yi Ablaye Diop gaa yi yëkkati loxo yëkkatiwul loxo pour cour vote gaa yi ne ko Ablaye loo bëgg mu jiite ñu xanaa loolu doy na mu jéem a lank ñu ne ko non non comme yëpp la ñu ne yow la yow lay doon nga xam ne suur bi nga keroog keroog bi affaire bi jaxasoo te affaire bi jaxasoo reeroo day am te régal gi jaxasee keroog xam nga yéen kenn waru leen a dàq mais nekkoon ngeen foo xam ne gars yi commencé nañ sonal te nag saa waay nga yéen ñii saa waay ku demul lambu ja wa dem xam nga xamoo ne dem lambu ja neex na mais ñibbi sa kër reer ba suur ñu tegal la ataaya saa waay di seetaan lig jéeg di seetaan équivoque ah di seetaan équivoque su ko gën a neex amul de loolu mooy mbir mi kay soo xoolal mero mero yi ci biir kër yi fa lay defaroo. ak madame waaw léeg-léeg nga gis sa jabar supporté mu askan bi nga jekki jékki rek mu génn rek day fàtte ne mere na sax ne ba eh, Babacar nga eh, eh xoolal xool Adama Diouf a ngi nii juboo fa lay nekk ba ngeen jaar fa tëddi. bu ngeen tëddee. jeex na jàmm rek ginnaaw ay jàmm. olof ñaari nag ginnaaw ay jàmm. moo tax nag yéen kenn waru leen a kenn waru leen a bundu xataal kun nañ bu ñu xamee ciram rek affaire bi day rafet may ñaawlu loo xam ne nag. gis naa gars population di ko commencé di ko def te métti na ma ci kanamu yàlla mooy ñi nga xam ne policiers yi nga xam ne ga yi ñu ngi leen attaqué du ma a wax fenn policiers yi policiers war a jox cer boo weesoo fa chauffeur boo weesoo fa kuy dem géej saa waay toog sa kër ñu dem indi jën jox la ko ak géej man def naa géej nga yëg nekk ci oto di nelaw chauffeur dina dawalal ñëpp dañuy war a jox cer ci réew mi mais rawatina yi ni nga xam ne nag image yi yéen a koy génnee ñu ci ci gis seen bopp moo tax rafetlu woon naa sax. yàgg maar di film yàgg maar moo tax rafetlu woon naa sax boo gisee image boo xam ne sax day indi ay sax yéen grand boucher ngeen dindi ko sa reportage jar na million moo tax ma la attaqué léegi ne li may envoyé mënatuma ko lii xam nga lu ko waral li may soxla c'est lire say affaire loolu du ko rus a wax fii parce que say wax rek. ak ni nga <laughs> waaye Adama da ngaa lekk avance wulli waaw ah, lekk naa ko nag waaw lekk naa ko mais dima avance moom waa ren de kay rek laay xaar moo tax damay wax waa ren de kay gars yi jox leen dat daan na ma nag waaw man bañu ma ko ma door foofu moom bëri tam pour mu aar bu buñu tabe bu rafet nii ku fi ragal door bu fi ñëw man soxla naa ko pen rang ma xam ne xaar may feeku def may lew kuur fe ñëw li ci sa kanam sa waay lambu boo demee mu yomb ci yow sax xaar est bi nga feeku te xaar nag boo ko lekk war xam ne gisoon ni fi nga taxaw boo ba léegi teg say dal sa waay boo boo fayee ko day neex ci yow mais boo tëddoon nag dinaan si biir naat dara jot la bu ñu la fayee xaay booy lekk sa askan na neex da nga ko jox sa jabar sax mais du neex dama ci soxla la bu ne rëng ba ma xam ne dal la. yàggul ko dàq ba. ah maa ko dàq ba nag. yaa dàq bëri na ah, yow xam nga. yow xam nga loolu. Ah. maa dàq bëri na xam nga loolu. ah kay. man maa dàq maa ko dàq xeex. xeex na fekk ay mbër. waaw maa ko dàq xeex. ëpp fi man maa ko dëgg nag wuli nag am na fi wax dëgg ndax mosoo gis muy arrière loolu man dama ko koy nangu wuli moom mosoo gis muy daw di arrière déedéet am fit de moo tax mu neex a borel ragal neexul a la ragal neexul xam nga loolu sax combat bi lu koy jeex combat bi door ak bëre rek waaw bëgg ma mu jeexee ci bëri sama mbay daam na foo jaaro nag eh, dama ko bëggoon duma alaaji mbay nag dama comme affaire dafa am na mu demee woon dama ko bëggoon teel a jàpp ci ay seconde rek man rek maa daan seconde fii nag jeex ko def fii tappa ci net bi gisoo mbor bu daan wi ay seconde amul li foog nga dama waaw ndax ginaar ak dina la arrangé biir baa ngi noonu kenn xamatul lu muy niro daam ko may oto dégg naan taay nag mu ngi wóor rek <laughs> mais kontaan naa ci oto mi nag yàlla mu rap ak mu rap ak jàmm kontaan naa mais ma laaj la leen mbay ak noonu damay dégg des fois mu lay woy Adama Dioufé xaw ma lan lan laa kamasi ni gee te waaw woyal ma loolu Adama jangi ñalla kamasi ni Adama Dioufé loolu histoire boo xam ne. ci delluwaat ci gaa gaa yi sax waaye kii wax dañ lay seet. gis nga loolu. ma déggoo ci teg xam ko. i jangi ñalla kama si nigge te daanu mbas una la ma ñambare la bëgg han num ko ko waye adama juufe maanaam jangi ñal laa kamasi nigee ñal mooy li nga xam ne mbaru séeréer moom lay moom lay yor boo buggee xam moom kamasi nig mooy boo duggee nag soonu Fatick nag dem dem dem jaxaab daan we mooy maanaam sa set comme ni ma ko mën a waxee dégg ma olo bu baax waaw waaw loolu la loolu la ma woyal moo tax saa yu saa yu ko waye rek nga béréngu nijaay boobu ndax sama nijaay lu mu leen sant moo tax suma doomu nijaay la waaw mu nekk ku baax loolu nag nga xam ne mu ngi béy waaram waaw xaritu jamaïcain la. jama way na jamaïcain lu rëy. Gambie waaw mais nag vraiment kontaan naa gis nga sum biroom def ko te jii day liggéey. Angel Fall mënuma Angel Fall Mbayang Fall Xaar Thiaw Mbayang Loum restaurant Anta. jigéen sama jigéen yooyu nga xam. restaurant bi dañoo man ginaar. <laughs> non sa waay naa la fa yóbbu nga mos ko. wala mbaxalu bu am laxas dafa neex ñoom dañ koo mën waaw. yow nga fay la. mbër mbër yi lekk ay pat pat ay espace moom dafa dépendre ci moment bi nga toll. xam nga yooyu dama ko waxoon benn booy fii mais booy bi bu ma ko koy wax bi def ma zoom pourtant balaa mu koy génne nag dafa dem bay bay jël troisième place euh, drapeau chef de l'État gars yi gars yi doog koo génne moom mii la te génne wu ko woon xam nga woon ne kii la sax fekke dafa doon wàññi poids poids bu mënut a wàññeeku mu ne ma te damaa gis bi nga nekkee équipe nationale poids bu ne bëri nga ko bëri nga yaa may déglu te xam nga nu ngay def sa poids bi ni normal ma ne ko nooy entraîné mu expliqué ma ay spakiteek dem daw àll bi yëpp ñëw lu ne ma ne sa waay nag da ngay fot mbuuru bi da koy wàññi da ngay daw mais il faut nga wàññi lekk bi di ko expliqué di ko waaj yéen bu yàgg gaay yow bi laa a garaaw garaaw lu gisee bi gis affaire bi dafay jaaxle ba ne kenn la ma mais mais mais mais jigéen ñi lekk pat nag. non pat dafa am muy jigéen muy góor dafa am moment bi nga ko war a lekk déggoo ma de. bëccëg nii moom ngay bëccëg xam nga ne la yaa ngi dox di def lépp fii nii yàpp bëccëg moo gën a baax loo gis médecine laa tey dama leen koy wax booy lekk da ngay lekk yàpp bëccëg bu guddee nga lekk ginaar mais bu nga tëdd lekk dina ba nga xam ne ku tollu fale booy nelaw kenn du xam ne ngay nguuxee comme mbaam saa wax yàpp jo ba njëriñ la la ee eh? sa biir bi day funk bi nga xam loolu niro mais bu fekkee bëccëg bi ne jaar seeraat la bu jaar léegi dag lu ba lekk ba suur doo ko def nii nag <laughs> ñibbi madame madame <laughs> mu nga fa mu ñaar nga yor waaw ñaar laa yor waaw ñu ñoom ñaar ñu nga fa ñu nga kene kaa fi laas kene kaa fi koo ci a nopp ah laa nopp nopp naa ñëpp waaw fii nag baa ah, ku ne rek boo nekkee ci moom rek am na fu mu ne am na lu mën def ah, waaw gën a mokk pooj <laughs> ah, ñoom yëpp a mokk pooj dàq defar ñoom yëpp a mën defar ginaar waaw leneen mais looy wax waa Equivox waa ak lu bees waa Equivox moom ñu ngi tëdd rek waaw xol sedd na ndax gis naa ni ngeen gis nga foo bokk day dox ah. waaye dafa ay nit. loolu non non non foo foo nekk rek day bokk tàgguma saa bopp may fu ma nekk day bokk loolu yàllaa ko def balaa nga ko xam ngel ba ko organisé samedi passé dinaa la am fay. dama ngel woo ma kumba Diouf ak Louis Senghor te deew docteur nga xam ne sama xarit la sama mag la sama lépp. meeru Karaw déplacé wu rek ndax ngel ñëw Darma ak ponkal yëpp moo tax Jamaïque sama xarit xam nga dafa mën a tooñ. saa saay la mu ne ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti amaat ñeenti amaat la wax ma ne ko nit nu mu wax melu na nu mu def la mel nar ko def ko nag mooy mbir mi mais nar ko te doo ko def mais Adama prononcé ba des fois dama lay non des fois dama lay gis nga def benn affaire waaw moo tax nag ma bëgg nga def ko nag non non da ngay sànne ku nii sànne ku boobu laa bëgg non pas pas prier dama lay gis des fois nga ne nii tak daal xaw taxaw yooyu nii la ah daal di dellusiwaat loolu gars yi mënuñ ko de mais kontaan naa lu ñu ñëpp du Sénégal gis nga affaire bi dafa xat mais Babacar. mosuma liiru mais mais mais mais liiru liiru. yàlla na mu am jàmm gars yi nañ ko comprendre rek. ko dal jigéen jigéen liiru dara ko nga ko def sax mais da ngay da ko di noonu la sax mais xam nga xuloo yi dafa bëri tay moo tax ma gars nañ ko comprendre wala noonu ko jàppee ah non gars yi nañ ko comprendre rek la ko jàppee ma liiru dof non waxuma la dafa dof de waxuma la de. ah déet am na lu la ma sa wax defe naa de. non dégguma lu mu ma sa wax nag non kii nag du sax caméra maanaa ah. te kii intéressé wu ma. nekkee sax na jël micro yi intéressé ma. sa soxna lu mu ci waxoon liiru. Ah, xaw ma lu mu ci wax ah dégguma ko de non kooku dafa doon tooñ rek dafa doon tooñ rek wax kay ak imaar du benn kooku xamul sama kër xamul fan la rek laaj ko fan la Adama rek ak fu mu yeewoo déet xamul fan la rek. xalaat naa bés bu téléphone sa yoru ko bu ko. moom est-ce naa lekk semence. Eh, ñoon nag vraiment maa leen mën ñi may bëri ñi maa leen mën ñoom yëpp waaw maa leen mën maa leen mën xam nga ne kon na fi ma jaar mais o fogole séeréer teel micro nga lakkal mu séeréer sam ber la o fogole séeréer me xasim na nuun tuwas nuun xaq to ñaana na nuun an na nuun ne ke ta fi na mosid barrière ke kan nu respecter den parce que comme président Macky Sall naka o yo fala affaire ke nak bo a jega na and naye roga fi an naga na fat nu respecter mosid barrière ñun yal na combat bi neex jeex ci jàmm mais ñun ñu ngi dem nag sum lokaat bu ñu fa fas lundi ba ñu ngi ñëw adressé ngoon